sëriñ barki mam Sara fa, le masa kenara, kanara balaay sa li ma mbake kanara di api avant Mbacke balaay sa buri lo dundu doyul mbake, mbake di mu mbake, mbake di fan ngay jëlee say tenue tenue loolu secret la comme genre ngay day jaay drogue rek soo waxee réseau bi day arrêté ay wax nga dëgg de mais yow sa solide dafa garaaw loolu la ñëpp di wax <laughs> di lijjanti fu may jëlee yére yàgg yi su ma ko waxee rek bonsoir à tous et à tous ravi de vous retrouver sur Peulsi TV mbokk a baax a baax pour seen émission Peulsi One on One tey nag may am plaisir di ko ràññee ci milieu bi nga xamante ne mu di nom de Queen Rila Queen nuyu naa la. fay naa la j'espère que vous allez bien maa nuyu sama fan yëpp. ba yaa si jàmm. waaw maa si jàmm alhamdulilah lépp jàmm. ça va gaa yi ne gis nga kii nii bu ñëwee nii calme nii déguisé wul gaa yi dañu ko xàmmee a dëgg la. <laughs> waaw loolu moom dëgg la damay génn sa nit ñi naan ma du man. <laughs> gaa yi na la du yow. <laughs> macha allah alors tey euh, dañuy ñëw euh, waxtaan ak yow tey ci sunu émission Pulse waroon on One. Mhm. Euh, di kontaan trop dalal la ci suñu plateau. alors Queen naka la dundee pap bi. konten, rek. konten konten naa trop sax parce que am ñu bari ñu foogale du ko am. ah bon waaw waaw. dañ la ko doon jëwé. waaw si commentaire yi naan demal jangi li oh. tiktok bi nga top do am bac et tout Motax buma amé tontu na len ci vidéo bi sax. boo amé tontu nga len. 9 mhm. mois yi comment ça s'est passé la préparation jang bi. safoon na trop. waay safoon na trop sax. safoon na trop yi. Mhm. di balancer ay.

bu ma demee après rajo bi lañ taaloon mais après ñëwutoon fekk man joxe nañu woon suma tur bu yàgg. léegi am ku ñu woo rek ne Rilla am nga bag rek oh. sama yaay yoo ko ju dem. ndeysaan <laughs> <laughs> mais dafa mel ne boo amee bac comme ni ko gars yi waxee. Mhm. ñun am nañ bac lu yéeneeku sa kaw. waaw soulagement buy wàcceeku moom. Hmm. poids bi. waaw man su ma amutoon sax laay laa du ma génnati kon nit ñi dañ naan TikTok bi la am raison si man. <laughs> dañuy am raison si yow. Mhm. macha allah loolu nekk lu am solo. Mhm. après bac bi lan nga aspiré def. après bac bi ah ñu ngi ñu ngi xool daal. Mhm. école de formation yooyu noonu. d'accord accord bàyyi lépp ci loxo yàlla rek. ah yàlla baax na. doon marketing communication wala journalisme. mën naa am ah mën naa am ah. Mhm. waa essayé lu yooyu. naa ko essayé rek di wax dara. <laughs> macha allah nekk na lu am solo comme ni ma ko waxee sànq sama introduction. ñu mhm. bëri ràññee la ci TikTok bi. nan la demee tey jii ba nga commencé teg TikTok di ci def ay contenu explique nous comment ça s' est passé. Euh, ça s'est passé en fin 2021 je pense. Mhm. vidéo fa ay dara parce que je suis dem ba def comédie. d'accord Je ak Doudou des vidéos Je tax. dama YouTube mu mhm. koy def sans gêne ma ne man pourquoi pas mën naa ko def ajouter ci sama touche personnelle. Mhm. après ma def ko mu passe, vues yi di parce que kii laa njëkkoon ubbi YouTube. YouTube mais foofu c'était difficile. Ah abonné yi dafa yéexoon. Mhm. après si lañ me proposer TikTok ma à ko def ça a passé. et ça a passé euh, tey jii nii ba nga duggee ci vidéo yi lan mooy def sa inspiration à chaque fois parce que yow comme nous ñu wax. da nga xaw spécial par rapport aux autres. tey kuy seetaan vidéos vidéo danaan noo kii lu muy daj. lu métti la quoi pour mu mën a réaliser lii. non pourtant méttiwul sax. Mhm. ni idée yi ñëw rek ma dem. nga dem sama yaay ma ay idée. Ah. Mhm. ban ban video moo la gën a marqué sa vidéo euh, bu ma defee Baye Fall bi. Baye di bërëbu waaw <laughs> boobu. bu. moo la ci gën a marqué waaw boobu moo ma gën a par exemple yenn de yi ngay def la euh, bi wala yo mosoo la mosoo la dal. Oh, non non mosoo ma dal. macha allah mhm. mais mosoo yëg fenêtre yi daanu. non non du <laughs> Ousmane. ah c'est bien accroché. c'est bien accroché waaw. du daanu quoi. du daanu du def dara. mais pourquoi yow léegi lan mooy tax yow nga bëgg fenêtre yow. dama toog nii rek je pense que loolu ci finale coupe du monde bi la kan bi la woon. Mhm. toog nii def benn vidéo rek ma ne pourquoi pas yéeg ci fenêtre bi ajouté man sama touche personnelle. d'accord après jox ko tur muy Ousmane. Mhm. fan ngay jëlee say tenues. tenue loolu secret la comme genre ngay day jaay drogue rek soo waxee réseau day arrêté. ay wax nga dëgg de. mais yow sa solide dafa garaaw. <laughs> loolu la ñëpp ah. da nga koy da nga koy kii nii. Mm-hmm. réseau bi muy continuer ah, di dem fecc yi nag chorégraphie. jox chorégraphie moom moom jox chorégraphie ak turu wëy yëpp tamit yu yàgg yëpp. Ah. mooy toog rek jox ma ko. waaw waaw waaw dañu foog du man de sama yaay moom ma koy jox. <laughs> waaw des fois nag yi dañoo kii xale nu muy def ba xam wooyi lii dafa yàgg mari marimar bi. marimar bu sama yaay moo toog rek ñu defal marimar bi. Ah, marimar waaw marimar moom mënoo ko fekkee xam nga rubi ay ñum rubi. xaw ma ko fekkee ah ay rubi yooyu sunu temps la woon. Ah. marimar bi de sama yaay moo ma jox de. ndeysaan lan mooy sa complicité ak sa yaay.

di def alors que du à part le TikTok comme genre divertissement la rek quelques minutes mais du la téré jang du la téré liggéey. du la mhm. rapport ak euh, ñi nga créateur de contenu rapport surtout Doudou ak waa yàlla su ma leen envoyé message moom rakin tag dañ may tontu. duñ ma duñ ma moom duudu moom man dama naa ko envoyé message mu toog 3 jours doo ma tontu. naa ma yee bro na mën naa la. non duud ak Faye dara moom c'est des frères allah mhm. non ay ndaanaan lañ mhm. ah macha allah mhm. donc euh, tey jii lan mooy sa rêve bu a mag. naa gis sama bopp fu sori. fi ñu wooyee Kabilaam. Kabilaam. macha allah loolu c'est important te te fa dem ren ñuy uh, troisième édition bu plus influences Awards mhm. nga bokk ci nominé yi catégorie comédie ak catégorie révélation mhm. lan ngay wax tout d'abord ci nomination boobu contente ci parce que c'est la première fois daaw bu ma gisoon nu mu tuddi sa euh, kii bi eh, Pulse bi waaw j'étais trop contente parce que kii moo fa nekkoon Pape Gora Sarr moom tamit mhm. il est trop fort il est trop fort tey nag ren ji ñu dugal ma si ah mm. kontaan rek. dëgg ñu xaar votel ma. ma mm. gagné ko incha allah. lan ngay wax gars sa fans yi lay seetaan parce que gars foog ngay dugg di def ay affaire yu gën ah, non man sama fans yi man ñu ngi sama ginnaaw man. Mm. su ma leen wax rek ñoom leen ma votel. j'ai confiance en eux. <laughs> macha allah mm-hmm. nekk na lu am solo merci beaucoup en tout cas ça a été plaisir ñu dalal la fii ci Pulse. Euh, lan ngay wax sa followers yi say téléspectateurs ñëpp ñi nga xamante ne ñoo lay nga leen di wax. di les remercier parce que nous ñëpp lii c'est grâce à eux. d'accord suñ top toppatoon suñ abonné wutoon ci man du ma toog fii ba nekk fii ñëw Pulse ñu hmm. interview. kon m'a ngi leen remercier di leen gërëm di leen sant di leen wax tamit je fais tout pour répondre commentaires <laughs> yep waaw du yëpp laa mën tontu mais moi ngi répondre du ma mën. Euh, waaw ci commentaire yi xaar ko ci Pulse Fun Fact. Hmm. dinañ ko laajte commentaires yi ay questions yu am solo xaar leen ko foofu noonu <laughs> ah dina am solo bu baax a baax en tout cas merci beaucoup Queen ah yow moom sama sama waay nga. Ah, mm-hmm. donc masha'allah ah, c'est c'est tout toujours un plaisir jàkkaaroog yow. un plaisir partagé defoon plateau defaat tey fii nii. Mhm. donc di la ñaanal jamm bu baax baax te xamna ni am nga ambition bi xalé nga donc gëmal sa bopp rek da ngay dem sori. en tout cas merci à vous cette téléspectateurs c' est toujours un plaisir de vous servir pour cette euh, émission Pulse One on One di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo japp ci émission bu mu expliqué Alaaji Baara nekkoon ci caméra bi tay nak euh, abi mo nekk ci biir nii ah, di joxe affaire mais amul ben problème ah, di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous semaine prochaine avec un autre invité d'ici là portez-vous bien ciao.